Olympia bu Paris ba pare nit ñi dañuy réclamer maintenant ni Viviane war na mën a jouer beneen spectacle bu gën a mag ça veut dafa war a jouer léegi euh, fi nga xamante ne bi mooy Bercy wala salle yu gën a mag ci àdduna bi parce que ñëw na Olympia jouer fa spectacle boo xam ne musuñu gis spectacle bu demee noonu donc en termes de spectacle Viviane a assuré carrément euh, ay heures yu bëri mu jouer ko ci spectacle sonnul baatam deewul ñu gis ko ci meilleure forme bi nga xamante ni bi vraiment xaj ne sax mosuñ koo gis ci noonu ba pare ak ay musiciens moom kese par exemple soo dee wootee yenn spectacle di nga woo ñeneen ñoo xam ne dañ lay wayle de temps en temps nga jox leen micro mais moom kese mu assuré show bu toll noonu donc bi mu wàccee carrément fans yi dañu ko dar ne ko nag vraiment yaa ngi ñuy soog a wan ne Euh, vraiment tu la reine tu es la reine quand même de de Jolof Band maintenant li ñu soxla ci yow booy nga woote Bercy wala nga woote maintenant lu gën a mag parce que fi mu Viviane fi mu nekk nii amul dara lu ko jombati ci wàllu spectacle parce que gis nañu ne ñoom fan sam yooyu ne Viviane mën na jouer lu nekk. Euh, concernant aussi diggante ak Pape Cheikh Diallo donc euh, gis nañu ni fi la Pape Cheikh Diallo waxanteeg moom ba jooy. ndax seen diggante ni mu sincère yi ak nu mu sonnee ci euh, concert bi loolu yëpp donc am na fa ci euh, concert bi ñu gis fa si doomam bi nga xamante ne bi mooy Philippe mm-hmm. mu ñëw wayandoog yaay ji mu nekk ay émotion ay moment yoo xamante ne bi moment yu doy waar la vraiment euh, chapeau à la reine du Jolof Band wax dëgg yàlla elle a assuré façon dinañ ko félicité ci plateau bi ngoone laataa ñuy jàll waa Viviane moom dañ koy féliciter bu mm. baax a baax a baax di ko ñaanal jàmm ndax euh, yaakaar naa ne bu mu demee ni ko Jumbori waxee sànq drapeau Sénégal la yóbbu. Mhm. Euh, drapeau Sénégal nag artiste bu fi jógee Sénégal dem feneen rek uti ci ndam yaakaar naa ne boo amee ndam Sénégal ñëpp ñoom ñoo ko am. kon Viviane dañ koy gën a félicité gën koo ñaanal jàmm yàlla yokk ko parce que Viviane bokk na ci artistes yi boo xam ne ne Sénégal artistes yu fi yàgg lool nag macha allah laf cat yu marqué seeni empreinte. Mhm. Euh, parce boo nee Viviane. ci mm-hmm. fulla boo nee Viviane ci fayda ci jom bëgg bëgg bëgg li muy def te mën li muy def parce que Viviane danga naan ci kan moo ko yar boo xoolee li ci Viviane li ci Youssou Ndour rek moo nekk ci Viviane fulla ak fayda di di woy nag di def lu bari nag di wax tuuti ndax Viviane artiste bu mag la tey beneen saal bu dul saal boobu sax ku ko joxoon tey mu feesal ko ndax lan mm-hmm. dignitéem ndax lan respecté doomu aadama respecté boppam Viviane doo ko dégg muy dàggasante Viviane doo ko dégg muy tontonte mën naa ne moroomam yi mu départ ndool yépp ana ñu tey ana ñoom Massaane flash flash de Thiès. déet dama ne dama ne waxuma ne dañoo xew dama ne ana ñoom ah, aram coy ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne tey ji départ ñoo départ ah, non ah ñoo ngi fi sawaay ñi ngi fi xew yi ñu ngi bay seen ah, ñi ngi bay seen waar xew Maasane. ah waaw mais yow ak ñoom Orom Thiaw. ak ak keneen ki Nabou yaa daan yaa ngi dégg Nabou yaa daan. ak ñeneen ak ñeneen yi nga xam ne doon way. waaw ñoom ñëpp ñi nga xam ne mu bàyyi way. ñoom jëkkër ja lañ daan. mais xoolal ñi nga xam ne ne ñi nga xam ne ne ñoom la départandool dama lay wax ne ne peut-être ci ñi nga xam ne ne ñoom ñoo ñoom la fi départandool Viviane dong moo fi des di wax moom moo lay wan ne Viviane am na fu nga xam ne foofu la ko réew mi teg te macha allah talent yàlla moo koy def ci doomu aadama am na ko réew mi bëgg na ko te mi ngi garder li nga xam ne ne moom mooy dignitéem dignitéem mooy lan doo dégg ne Viviane waxal nañ ko dara lu bon wala def na fi dara lu bon Sénégal nag moom ci ay sos moom dëkk sos njaay la dëkk créé njaay da ngay toog ba mu neex la sa noonu làqutu ci ginnaaw sosal la créé la waxal la loo xam ne ne du du du sa jukko parce que xoolal rek boo xoolee ne Viviane ci Youssou Ndour la nekkoon te Youssou Ndour ku ko xam-xam ko ci dignité Youssou Ndour doo ko gis lu ne leen koy waxal ci àdduna du mës a toog ci presse di wax ak tontonte mën naa ne wax ju bari moom boo koy wax wax ju bari chaque jour di nga wax loo xam ne ne àdduna mën nañ la jaaree xeeb la mhm. waaye di nga wax loo xam ne àdduna mën nañ la fa jaaree bëgg la man Viviane dama koo seetlu communication bu koy def bariwul lu ci ëpp sax Pape moo koy topp sonal ko te gis nga communication bu bari artistes yu bari moo leen rey télévision bu ne nga dem toog fa wax site internet bu nekk toog fa wax man nag Viviane li ma koy conseillé mooy na góorgóorlu fi mu teg tànkam. Eh. bu mu ko fa teggi waaw waaw parce que nit ki loo jàppoon ba mel nii boo ko jàpp boo ko jàppee mu gën laa jig ndax Viviane ku ko xool xam ne ne jàmbaar la ci li muy def xool Viviane ci at yi mu am. ba muy way ah, jiiñ leen ba tey ba muy way ba muy way jiiñ leen ba tey boo ko xoolee style yi Viviane doon sol ba tey suñ ma ko mayoon tey ma sol ko. parce que xeewiwul parce que mën na sañse am na classe mën na sol yére boo xam ne ci âge bi Viviane sol tey jii. Mm. su Viviane taxawoon ma taxaw sax macha allah ñu ne man maa mag Viviane. parce que loolu yàlla moo koy def don la man de li ma koy ñaanal mooy lu mu song na ko daan. ay moroomam daal ñi nga xam ne départ na tubaarikàlla macha allah deful départ gaynde arrivé muus. ah waaw ah, waaw mi ngi dem de. macha allah yal na ko ah, yàlla defal jàmm. Ah, jërëjëf Ngoné yal na ko yàlla defal jàmm mi ngi avancé bu baax. non waxuma non dama leen ñoom la fi départ ñoom lañ fi doon dégg ñëpp a koy wax waaw ñoom ñoom lañ na mooy maasaan ni ko yëg maasaan ni kon mu dëgg na yaa daan mi ngay wax bu bàyyee làmb daan nañ ko kay boog nabu kay ma bàyyi nañ daan de loo bëgg mu am na fulla am na classe am na kuy papaam daal kan la aram coy mi nga naan ñoo départ. waaw Viviane gis na fi ay jëkkër yu baax. ba taay te teewul la ñu way da ragal mais Viviane départ andoo. dégg ñooñu de. ah Viviane ñan la départ andoon. xam nga ku yab Viviane. Viviane ñan la doo jël Viviane jël kere càq yi boole ak. non non ñoo départ andoo. ñoom lañ fi doon eh, eh, seetaan. Viviane tamit macha allah Viviane nga Viviane. yow bàyyi ma nga la amati. yow mii xamoo Viviane. <laughs> du ñu teel a càq de ndax ñoom ñëpp. léegi yow léegi yow lan ngay lan ngay lan ngay. Viviane daal yàlla na ko yàlla defal jàmm rek vraiment chapeau à la reine mm-hmm. euh, wax dëgg yàlla. non xam nga Viviane problème bi mooy Sénégal fii. xamuñu ko mais Viviane moo am benn problème est-ce que xam nga Viviane dafa am problème. dafa am problème waaw. ban problème xam nga ban problème la am. Viviane jikkoom ak jikko musique bokkul. problème boobu laa moom ree ko tuuti rek mu xëcc la mm. musique day bañ loolu comprendre nga lim la wax mm. mais bu bu li li muy def loolu lépp yaa ngi dégg musique mi ngi ci moom ok xoola Gàmbi laa nekk mm. benn waykat bu mag bu tudd Franky Paul mm-hmm. ñëw foofu ñu ne ko ndax dangay ñibbi direct mu ne non day jaar Sénégal seet Viviane ñu ne ko ban wayam nga mën mu way ko ci Gam TV kon loolu du tey te kooku meilleur musicien la Franky Paul yaa ngi dégg ba pare Viviane fi musique bi nekk nii xam nga keroog wax naa ko si anniversaire ah, kii doom ji mhm. fekkoon na Viviane ne fa parce que tey rappeur yëpp képp bépp rappeur boo gis fii Viviane ànd naa moom fekk la si li nga nekk am na ñoo xam ne dafa leen a fekk si sax di rap est que xam nga Viviane bu rab la gën a mën lii muy def mhm. est-ce que xam nga loolu mhm. mais problème bi mooy Viviane yaa ngi dégg tey jii li mu leen wan li mu wane mu bett ñépp lu tax wanewu ko boobu ba léegi loolu mooy fee bi saa ngi dégg mm-hmm. lan moo tax Viviane toog ba heure bii mu doog leen wan doole ju mu ju muy def nii ba pare kam moo xam benn après Viviane buy tëgg Europe yaa ngi dégg producteurs yu mag yëpp ay toog est-ce que xam nga lool. Mm-hmm. am na ñu nepp yi bu ñu demee Europe kenn xamu leen yaa ngi dégg kenn xamu leen bokkul ak mais sens boobu est xam nga lan ngoo ko may. Viviane dafa dafa fekk temps bi Youssou Ndour di wër àddina la ànd ak Youssou nduur Youssou Ndour présenté ko ci plateau yépp sens boobu la ëppee yeneen artistes yi sens bi Viviane am mooy dafa tombeek Youssou Ndour di wër àddina Youssou Ndour présenté Viviane ci plateau yu àdduna bi yépp sens boobu mooy sensu Viviane mais Viviane aussi yéen sax xam ngeen ni su fekkente ni am na staff bu baax li ñu jooy ci musique mun na ko def staff nag nekkul ay kii daf ma neex que nii non musique dafa am nu muy demee gisoo tey boo compté woon ñoom Viviane ñu nekk onze onze personnes boo ma leen mënoon compteel onze personnes am na douzaine douzième personne Viviane staffam baaxul nii no da nga may déglu ma wax la bu dee am na staff bu baax lii mu def nii du nekk gan ci ñun waxin laa la wax comprend nga li ma wax tekk bi mu toog boobu ba léegi deful lu toll nii tey mu def ko bett ñépp laa la wax mu xam nga ni kon mënoon na ko def bu yàgg lan moo tax defu ko bu yàgg ma ne la kooku mooy mooy xalaat bii parce que tey topp kaa soo fi indee kaa kaa ñun suñu problème lan la soo defee dara dañuy xool ba xam bu njëkk ba munoon nga ko def bu yàgg wa ilaa wala léegi nga ko mën a def ñu siy waxtaan ci xel rek. Mhm. mais dam la wax ne Viviane si boppam Viviane si boppam Viviane nekk na ko xam ne nii xoola euh, sénégalais yi dañ ko desee comprendre. Mhm. yaa ngi dégg ba pare musique mun na ko yóbbu fu sori ci kaw ñu jàppale ko comprendre nga li mu la wax ba pare li mu def nii lu tuuti la lu tuuti la ba pare comme ça. moom nekk na ko xam ne nii tamit li muy def daf ko tarbiya parce que ku aw Youssou Ndour dem ba heure bii mu créer baanam baan bi di dem ba léegi fayul ba pare woykatu àdduna bi yëpp Viviane ànd naa ñoom way parce que Sénégal problème bi mooy. Panachaar la ne bi. label bu mag bi. non Viviane non Viviane bi muy ñëw bi muy ñëw bi muy ñëw super étoile. Hmm. fekk na xoola fekk na mu ñor ñëwul foofu ñore fa. fu mu fu mu ñoree. da daan dóor ay da daan musique musique am. balaa muy ñëw d'accord ma de mu ñoree. xaar xaar mu war la xaar xaar la waa da la ñore nañ ma noppi. xalaat ngay wax. sama xalaat waaw sama xalaat laay wax. non sama xalaat man dam lay wax benn affaire. waaw xam nga Viviane. bi euh, super étoile. Uh-huh. yaa ngi dégg. super étoile lu tax fan la ko gisee ba bëgg ko neewul yàcc ñu woo ko kon bi muy ñëw indaale na dara loolu laa lay wax wala boo tontul ñu avancé waaw bi muy ñëw laa wax de indaale na dara. bien sûr parce que temps boobu Viviane di feeñ dëgg. ku daan def genre musique yi Marsané la daan woo muy Marsané moo daan composé ñu bëri ay positive ah, black soul affaire yooyu noonu xam nga. mais Viviane tamit dafa ñëw ak beneen beneen beneen baat boo xam ni baat bu raar. parce que soo yi Viviane wayam man bu ma ko composé dëgg xool way Viviane ah. est-ce que xam nga Viviane dafa xaw a jël ci Marie gaw la tuuti. jël na ci Marie Ndiaye Gawlo jël na ci Beyoncé. non Marie Ndiaye Gawlo jël na fépp kii Marie Ndiaye Gawlo nday Marie Ndiaye Gawlo. mooy ren de kii man léeg-léeg suy way damay <laughs> gis man suy way yàlla na yàlla seral yaxaw nday Marie Ndiaye Gawlo Viviane suy way dama siy gis Marie gaw Gawlo. franchement parler yaa ngi dégg en tout cas daal. mën na de. jàmbaar la li mu def nee lu baax la. mën na de. yaa ngi dégg mais. liggéey moom Sénégal yombul liggéey si Sénégal yombul. Mhm. parce que léeg-léeg. da ngay nekk ci sa liggéey sonn si bay bëgg a dee benn jimboor yi riiree ca àll ba di la fa yàqal. Hmm. mën na de ah. xam naa euh, xaritam yëpp kontaan nañu euh, parce que réussir na spectacle ku mel. ñoom ba pare ma wax la benn affaire soo gisee ma ne la. boobu ba tey xam nga bi yéen doo leen di laajte ko mhm. dama ne la boobu ba tey lu tax mu taa mu toog taa ba boobu ba léegi deful lii. Mhm. yaa ngi dégg. waaw eh, du téye dara dara du ko téye. loolu tamit affaire la. dara lu muy yore dafay joxe toog. comprendre nga ni mu la wax mhm. waaw. ndeysaan lu mu da koy partage moo tax ma ne la bu amee staff bu baax. mun na dem ko xam ni moom lu mu am da koy joxe. waaw tabaski gi sax xar yu bari lay jënd